asalaamaaleykum amis chers internautes solution TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di wax ne leen dal leen ak jàmm ci lu gën a fës daal di ñëw ci euh, Amadou Ba candidat mouvance présidentielle moom nag daal di nay woo ki nga xam ne rek moom mooy Bassirou Diomaye Faye daal di koy euh, félicité ginnaaw rek victoire bi nga xam ne rek Bassirou daal dina koy am ci élection euh, présidentielle yi li ni mel nag daal di tax ñu daal di xam ne que ne la scène politique daal dinay dund benn moment historique moment boo xam ne kenn 두고 fàtteeti euh, ci réewum euh, Sénégal ñu gis que ne kat lendemain wu élection présidentielle euh, ki nga xam ne rek mën naa ne moom mooy candidat mouvance présidentielle daal di woo ki nga xam ne rek moom la ñu daal di fal manam daal moom la sénégal daal di tàmmu ngir rek daal koy tekk ci li nga xam ne rek moom mooy bopp réew mi muy Bassirou Diomaye fay bokk ci coalition Diomaye président ginnaaw rek compétition électorale bi ba mu daal di jàllee ki démb ci ab daal di jàllale yooyu yële félicitation waaye tamit daal di léegi tamit di ñaanal ki nga xam ne rek moom mooy Bassirou Diomaye fay mi nga xam ne jamono ci moom mooy le président du euh, Sénégal ngir rek mu daal di am réussite ci la nga xam ne rek bëgg na ko daal di sóobu waaye tam ma ngi koy xamal euh, solo si nga xam ne rek am na ko maanaam mission bi nga xam ne euh, moom lañ ko dénk maanaam daal bopp réew mi moom rek Bassirou mu daal cay nekk solo sa rek moom Amadou Ba ma ngi ko koy daal di xamal waaye tam ma ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax lépp rek daal di oyof tollu ci moom maanaam daal yéen bi oyoful loolu yàlla suñu borom may ko force ba mu daal di relever li nga xam ne rek moom mooy euh, défi yi maanaam daal li ni mel la ki nga xam ne rek moom mooy Amadou Ba di ñaanal Bassirou euh, Diomaye euh, Faye ginnaaw nag bii li communiqué mi ngi génn nag ginnaaw ba yi daal di jógee ci yeneen candidat yi maanaam daal candidat yi nga xam ne ñoom la ak Bassirou Diomaye Faye ñoo bokkoon ca boobu li compétition waaye nag ki nga xam ne rek moom mooy Mohamed Boun Abdallah Dionne moom rek moo daal di wul Euh, félicité ki nga xam mooy Bassirou Diomaye Faye la ko waral nag mooy que dafa daal di feebar ba ñu ko. foofu noonu ca euh, France ndiki euh, samedi passé li ni mel nag mi ngi daal de moo waral moom nag Mohamed Boun Abdallah Dionne félicité gul ki nga xam ne moom mooy bassiru Bassirou Diomaye Faye élection présidentielle yi lee daal di amoon 17 candidats ñoom rek ñoo doon jongante waaye nag Bassirou Diomaye Faye daal di remporté bii les victoire dès le premier tour daal di am lu tollu ca 58 pour cent la daal di am contour 33 pour cent pour ki nga xam ne rek moom mooy amado Ba yeneen pourcentage yi nag yeneen candidats yi ñoom ñoo ko daal di euh, bokk mu nekk nag mbir moo xam ne rek suñu waaye statisticien ñoom ñoo ko dal di génne daal di xamle li ni mel bien vrai que ne résultat définitif yi euh, génn gul waaye nag résultat yi nga xam ne jot nañ ko amani rek mooy firndeel que ne Bassirou Diomaye fay euh, moom mooy le cinquième président du Sénégal moom mi nga xam ni Ousmane Sonko. moom moo ko daal di euh, tànn ginnaaw rek euh, ba mu amee ab condamnation judiciaire bu ko teree euh, mu daan bu ko teree mu doon candidat moo war a rek mu daal di choisir Bassirou mi nga xam ne rek jamono ci moom moo nekk le cinquième président du Sénégal yii les élections nag daal di jàllee ci ay conditions yu baax loolu malgré nag am na ay difficultés yoo xam ne rek nemmeeku nañ ko ci may amee ay difficultés mineures la maanaam yoo xam ne daal munta ñàkk waaye daal lañ ca mën a jàpp rek dans l' mooy que yile élection daal dinay euh, jàll ci euh, jàmm ak euh, salaam ci fàttali moom Bassirou Diomaye Faye mi li ba ñuy door li nga xam ne rek moom mooy campagne électorale bi mi ngi ko fekk ca prison ba ginnaaw loolu lañ ko daal di génne moom ak ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko ñu daal di tàmbali battre campagne ca boobule jamono yeneen candidats yi commencé woon nañu battre campagne ba mu génne nag moog Ousmane Sonko ci lañ daal di waree li nga xam ne rek moom mooy l'ensemble du territoire sénégalais ngir rek daal di wax waxtaan ak ñoom waaye tam ngir rek euh, daal di euh, leen di euh, xamal seen projet bi nga xam ne rek ñoom moom la ñu daal di bokk te moom itamit la ñu daal di présenté li nga xam ne rek moom mooy réewum Sénégal ba tax na geste bi nga xam ne rek Amadou Ba daal dina koy def waaye tamit réussite bi nga xam ne rek Ousmane Sonko teg na ko mu nekk stratégie boo xam ne moom la daal di teg daal di teg ki nga xam mooy Bassirou Diomaye fay nekk na mbir moo xam ne dina marqué la vie politique sénégalaise maanaam dal ki nga xam mooy Amadou Ba. ñi mu félicité am ni mu félicité euh, Bassirou ma Faye Ousmane Sonko stratégie bu mu teg daal di teg Bassirou Milé li nu mel nag dina marqué bu baax a baax la politique euh, sénégalaise mu nekk nag ab exemple boo xam ne euh, dafay daal di firndeel que dem démocratie ak maturité politique rek lay daal di wane buñ fa daal di jugee ba léegi rek dañuy daal di dem ci mbirum élection présidentielle yi la ñuy daal des ni nag yi nga xam ne rek moom mooy président ma Sall aussi tamit daal daal di félicité ki nga xam ne rek Bassirou Diomaye Faye li ni mel nag mi ngi ko xamale ci kontum x moom président Macky Sall ginnaaw nag ba mu daal di saluer ni nga xam ne rek noonu la élection présidentielle yi euh, daal di euh, déroulé maanaam daal lépp rek ci jàmm ak salaam amul xiiro amul ŋaayo bien vrai que ne askanu Sénégal ci bëri rek génn nañ euh, ngir dem vote ji waaye noonu nit toll rek mun naa ne lépp rek ci jàmm ak salaam lañ ko daal di defee ba tax na moom président Macky Sall nag ma ngay félicité waat bu baax a baax. ki nga xam ne moom mooy le gagnant di euh, bassiru ginnaaw nag tendance yi nga xam ne rek ñoom ñoo njëkk a génn daf ñoo daal di wane que ne kat victoire bi kenn kese moo ko moom muy euh, bassiru Diomaye Faye et que li ni mel rek dafay daal di euh, nekk victoire démocratie sénégalaise loolu la président Macky Sall daal di xamle ci compte xam keneen ki nga xam ne daal dinay félicité Bassirou Diomaye Faye muy Bougane Gueye Dany moom itamit tamit daal dinay félicité bu baax a baax Bassirou waaye tamit di ko daal ñaanal bu baax a baax ci fàttali rek moom Bougane Gueye Dany ba sénégalais yu bëri di xaar ngir rek mu daal di tànn ana kan lay soutenir ci élection yi lii moom dafa daal di jël choix daal di xamle que ne kat dafay xaar deuxième tour daal di am ngir rek mu mën a xool rek ana kan lay daal di àndal waaye naka daal di xamal militant mi que ne kat yéen nag choisir leen xool leen ku leen neex rek ngeen daal di votel maanaam daal consigne de vote lañ doon xaar ci Bougane Gueye Dany mi moom moo jiite mouvement gëm sa bopp. moom itamit nag Bougane ginnaaw boo waxee loolu le nag moom bu félicité euh, ki nga xam mooy Bassirou Diomaye Faye am na ci ay commentaires yoo xam ne rek daal dina ko ci am ndax deuxième tour bi nga xam ne rek euh, moom doon na ko doon xaar nakate yi les élections euh, dès le premier tour la ko ki nga xam ne rek moom mooy Bassirou Diomaye Faye di daal di gagné Idrissa Seck moom itamit daal dinay félicité ki nga xam ne rek moom mooy Bassirou yi fay ginnaaw rek bañ doon ko xaar depuis démb ba léegi moom Idi mujj naa nag génn ci li nga xam ne rek moom mooy réserve am daal di waaye tamit ñaanal ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye waaye tamit daal di koy euh, félicité bu baax a baax a baax moom Bassirou naka jamono ci moom mooy la le cinquième euh, président du euh, Sénégal ginnaaw nag tendance yi njëkk yi nga xam ne rek moom la daal di wane fii la ñuy daal di wàccewee suñu way kàddu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen joxaat dig daje ndikk ci kanam tuuti yeneen i information waaye naka bu leen fàtte à chaque fois rek di abonné ngir ngeen mën a am information yu woote leer